di ziaral ñëpp di leen ñaanal jàmm tey ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di leen baalu àq encore une fois ci weeru koor bi ñu nekk di baal ñëpp àq tey ñaan yàlla boole ñu jéggal te may ñu kooru jàmm di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi topp suñuy video ci di ñu encouragé ci li ñuy def alors tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci benn vidéo analyse bu ñuy def ci seen série maîtresse d'un homme ginnaaw bu ñu seetaanee épisode 30 ba pare dafa amoon quelques point yu ñu ci noté woon bëggoon ci def taxaw seetlu def ci ay jàngat ak yéen avant loolu aussi amoon na ñaari question yu ñu bëggoon a laaj képp koo xam ne am nga ci xalaat rek mën nga ñu ko envoyé par message vocal ci sunu whatsapp mooy numéro bii di affiché question bi ci njëkk mooy pour l'instant à votre avis diggante joor ak biiram est-ce que dimbalante kese moo fa nekk wala dafa am mbëggeel ci suuf parce que dàpp nañ gise ñoom ñaar ñuy doxale xaw na luus trop donc loolu mooy question bi njëkk question bi ci topp am na un jour benn vidéo bu ñu dugaloon am benn copain bu ci doon joxe xalaatam mu ni dafa jàpp ni paa bi nekk ci chantier bi di liggéey papay ragi la et tey bu ñu seetaanee épisode 30 bi fin bi ñu gis ko ci buntu kër gi donc il paraît que li waaj waxoon dëgg la donc xel mën na jëm ci côté boobu képp ku ci am xalaat aussi mën nga ñu ko envoyé par message vocal ci sunu WhatsApp. alors tey sunu vidéo ñu ngi ko tënk ci ñaari point bi ci jiitu mooy diggante Marème ak famille parce que tey yaayu Cheikh daf ko laaj question bu am solo donc xanaa say mbokk yéeguñu la et ñu gis ni depuis début série ba léegi. Marème benn yoon lañ gis mu demoon seeti yaayam et niñ gisee yaayam essence yi dafa tawat que moom appartement la yor nekk fa ak benn xaritam et li tax tey ma ni wax bi ko maire bi wax dafa am solo c'est parce que su nekkoon ak famem mu jël décision pour dem seeti laal la dinañ ko conseil ni ko bu mu dem lu tax parce que tey takk biñ ko takk moo waral laal mu nekk ci condition yi ba pare moom mu jóg dem di ko seeti imagine leen su duggoon ci hôpital bi gisanteeg Lalla foofu lan moo nar a doon réaction Lalla ak foofu nan la nar a demee donc su amoon ko ko conseillé kon yaakaar naa du jóg dem bien vrai que xaritam bi mu nekkal la plupart du temps mi ngi koy conseillé mais je pense que tey su nekkoon ci biir famille ci lay gën a xamee fan la war a teg tànkam parce que vie de famille aussi tamit dafa bokk ci li nga xam te ni day fondé nit ki parfois nag am na famille yoo xam ni c'est très compliqué. mais quand vie de famille lu am solo la ci doomu aadama te essence bii dañ gis ni bëri na ci ay nit rawatina ay jigéen ñoo xam te ni nekkatuñ ak seen famille dañuy dem louer seen appartement foofu la ñuy nekk xëy na nag conditions yi bokkul am na ci ñoo xam ni dañ mënatul nekk seen kër parce que peut-être amuñu fa jàmm wala am na problème yoo xam te ne ñoom mënuñu toog dékku lool ñu préfère isolé wu am na ci ñoo xamante nit bëgg liberté. wala tey bëgg def yoo xam te ni xëy na dañ jàpp ni xajul seen kër loolu moo waral ñu dem luye ji faneen pour mën fa nekk. pour premier cas bi sax bon mën nañ ko comprendre tuuti parce que parfois dina am ci yenn famille yooyu bokk day compliqué trop pour nga mën a nekk foofu mais ki nga xam ni dafa génn seen kër luye ji fu mu nekk uniquement pour am liberté mën a def li ko neex. d'habitude genre cas yooyu noonu borom day mujj di ko regretter parce que tey bëri na ci yoo xam te ni di ci dugg te boo nekkoon sa biir famille. doo ci xalaat dugg bëri na loo xam te ne di nga ko def te boo nekkoon sa biir famille soo jëlee décision def ko ñoom dinañ la conseiller wax la nii ak nii nga war a defale dans ce cas di gën a xam bu baax fi ngay teg sa tànk ci àdduna. ñu gis ni Marème bëri na ay choix yu muy def tey jii sax bu du woon a xaritam bi dina gën a pire parce que yu bëri moo ko ciy génne mais bëri na ay choix yu muy def je pense bien que su nekkoon ci biir famille ni mu koy doxalee du ko doxalee noonu. alors foofu ñu ngi leen di bëgg wax ni vie de famille lu am solo la kenn ku ne loo mën a def ba mën a rester ak sa famille def ko parce que dafa bokk ci li nga xamante ni si mooy former doomu aadama. beneen point bi tey ñu ngi ko jëmale ci Cheikh ñu dégg ko bi muy waxtaan ak Bakary papay Jalika mu ni la daf ko bëggoon a humilier loolu moo waral moom mu def le tout ba takk Mariam donc comme ni ñu ko doon waxee ci sunu vidéo yu weesu rek tey Cheikh lim def nii Lalla moom moo ko ci poussé parce que non seulement ak lim ko doon topp jéem a def le tout ba rassembler preuve yooyu yëpp ñëw tegal leen lépp ba pare teg fi ni ko doo ko takk des fois tamit nit kenn du ko topp ba mu sës parce que parfois soo ko toppee ba mu sës rek mën na réagir te bu réagir du baax d'habitude nit boo ko toppee ba mu sës si toutefois mu réposé rek. dina am ay conséquences mais aussi tamit d'une part comme ni ñu ko waxee woon rek ci vidéo yi ba léegi nous ne sommes pas d'accord avec Cheikh ci ni mu doxale parce que tey je me dis que ni c'est pas parce que Lalla def na loolu lépp rek que da nga war a forcente ak moom pour takk Marème kenn waxul ni Cheikh takk Marème mais ni mu ko defee c'est ça qui pose problème donc nit ki du boo meree rek nga réagir waroon nga mën a taxaw seetlu xool jéem a jàngan mbir bu baax xool ni man li may bëgg a def nii su ma ko defee ëllëg lan moo ma ci nar a fekk ak nan la nar a demee donc yooyu yëpp dafa jar a xalaat avant ngay dugg ci dara mais nit doo def tey bu la dara dalee rek nga bëgg a réagir automatiquement parfois day baax nga jël tuuti recul jàngat bu baax li ci kanam door a mën a projeté wu. sinon bu fekkente ni analyser woo rek mën nga dugg ci loo xamante ni si ni ëllëg di nga ko réccu parce que Cheikh ku xam na ne instant bi bien vrai que bëgg na Marème mais aussi tamit ba ñu laal la te condition yi Lalla nekk nii instant yi gënulu ko te neexu ko kon li mu doon forçante pour jéem a dugg ci sëy bële tey moo ko indi lii lépp instant yi nii këram jaxasoo na àddunaam jaxasoo na te ba léegi nii bu ngeen ko gisee ni muy ngeen xam ni mi ngi regrette te toujours rek comme ni ñu koy waxee rek regret moom day fekk jëf ji wees bu yàgg donc bala ngay dugg ci dara mieux nga analyser xool bu baax. xam naa nag am na ci góor ñoo xam ne bu ñu jéggee li may wax dinañ ni lal dafa yabaatee Cheikh xam na droit takk ba ñeent et cetera loolu dëgg la mais dañ ni anam bi mu ko defee moom moo xaw a doy waar parce que déjà fi ko lal la jàppee ba tegal ko preuve yëpp indi ko même pas quelques jour mu forcenté takk donc je me dis que ni c'était pas le moment moo na jéem a dalal mbir ba pare ba lépp dal mu toog waxtaan ci ak moom avant que muy dem di takk mareem mu am aussi benn wax boo xam te ni Bakary wax na ko Cheikh mu nekk wax boo xam te wax bu am solo la mooy nit ki day toll foo xam ni say problème yaa koy réglé sa bopp bien vrai que mën nga dem ba jaaxle nga gis koo xam te ni nga ko laaj xalaat mais day toll yenn situation yoo xam ni nit ki moom mooy jël propre responsabilité mën na régler ay problème boppam comme xalaat du nag mën nga laaj tamit say xarit seen xalaat mën nga laaj say waajur seen xalaat mais dina toll yenn situation yoo xam te ni nit ki day jël affaire en main man ko jéem a gérer boppam donc tey loolu moo nekkoon sunu vidéo bi nga xam te moom lañ def ci seen série maîtresse d'un homme marié ci épisode trente bi képp koo xam ni aussi li ñuy wax am nga ci xalaat mën nga ñu ko envoyé par message vocal ci sunu whatsapp di leen rappeler aussi que analyse yi ñuy def sunu avis personnel la donc liñ ci jublu mooy lancer ci ay message uniquement pour ñun ñëpp ñu mën ci jariñu alors wax ji ñu fi wax képp koo xam ni laal na la ñu ngi tub bu baax di jégalu lépp lu fi jub ngeen xam ni ndimbalu boroom bi la mais lépp lu dëng aussi ngeen xam ni ci kiy wax la parce que doomu aadama moo matul di leen jox digg daje ci beneen vidéo incha allah di ñaan yàlla nañu yàlla defal kooru jàmm. lu xew TV. seen YouTube sénégalaise da bëgg publicité jokkool ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te